barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan.
rexla bi toujours bi nga xam ne macha allah rexla bi bàyyi defoon ci ajam mu njëkk ga te utalu ko tur ñun ñoo ne rek ñun ñoo ne rexlatul xiyaasiyatu luula ndax dafa am yeneen wala boog am na beneen ma nga faas ba tey jege na darix ba ci maqaam boobu nee na mu doon tàggu sirru sirri di di di tàggu aynul ayni yooyu yëpp jaruñu si xuus la sirru rek dèjà bu amee ndeke sirru itam am na sirru dama koy misaale nit bu ne bu ne ko sopp naa la xam nga loolu sirru la moo ko feeñal mais ndax dëgg la loolu mooy sirru sirri bon mu ne nag wa ushhidu allaha wa rasulahu wa cheikha taxawaay boobu nag bàyyi ne maa ngi seddaloo yàlla di seddaloo yonantam bi di seddaloo Cheikh Ahmad Tijaani ne anna aqidati allati ataabadu biha maanaam allaha wa atlubu min allahi an alqaahu alayha lu sérieux lay wax si ni mi ngi seddaloo yàlla di seddaloo yonantam bi di seddaloo Cheikh Ahmad Tijaani ne pas-pas credo bi mu am di ko di ci jaamu yàlla tey ñaan yàlla bés buy dajee moom la fekk mang ca soppiwu ko lii la mooy inni ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika la ne mi ngi seede di dëggal ne amul benn yàlla bu ñu war a jaamu ci dëgg jaamu ko jëriñ ñàkk jaamu ko lool illa allahu lu muy allahu waxdahu moom kenn képp nag la sharika law amul benn xeetu bokkaale du kenn du lenn fii daati yi ca jëmmam ja benn jëmm la wa sifaat yi ak meloom yi kenn bokk koog moom waa faal yi ak jëfam yi kenn amu ca yoon waaxidun kenn la fil uluyati ca yàllaam ga laysa maahu amul dara lu ànd ak moom shay'un dara aslan cayi faf pas-pas ma ngi daan na ko nag tàllal tuuti bu yéen ngi fàttaliku al maqamatu lin salaat nee na tawxiidu daati la ko tënk mooy qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad teg na sax daalika bi anna allaha huwa alxaqu wa anna ma tadcuuna yadcuun min dunihi huwa albaatil qul huwa allahu mu ne wéetal jëm yàlla ja moom mabaaxis ya gudd nañ waaye la ko jëmal mooy ba Quraysh laaje yonent ne ko unsub lana rabbaka askanal ñu sa borom bi nga jaamu kan la yàlla tontu ne ko wax leen ne huwa daf koy fedd bi allahu ahadun kenn la capaccu bi allahu yàlla ba tey assamadu mooy ki njublu ci mboolee mi aajo dam yeli juru kenn walam yulat te jureefu ko walam yakun lahu ahadun kufuwaan maanaam kufuwaan ahadun kenn du nawleen maanaam jurul kenn kenn juru ko wax dëgg yàlla kooku pas-pasu trinité ci diine suñ mbokk yi boobu wane ne d'accord ci yàlla kenn la du ñett si du ñaar ok mu ne tawxiid ko ci meloom yi alquran tënk na ko ci laysa ka mislihi shay'un huwa samiul basir amul kenn kenn amul dara lu ne naka yàlla mu ne tawxiid ko ci afaalam yi mu wax nii jëf yàlla yi yàlla ko xam moo ko sañ mu ne moo tax wax yu gudd na mais aayey laa yusalu amma yafalu wa hum yusaluun moo ko tënk yàlla kenn du ko laaj le pourquoi de ces actes mukk te nag ku dul moom daañu la laaj lu tax lii su jotee wax na sax ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun li tax nag mooy yàlla dafa xam lépp te yéen xamu leen lu muy tuuti wa ma utitum min al ilmi illa qalilan aa mu ne ci ay turam dañ ko ci wéetal mu ne moom gàttal na ko ci alquran ne yàlla moom moom al asmaul husna tur ya gën a rafet fad'uuhu biha bu ngeen koy xoo ngeen xooyee ku tur yim tuddee boppam ndax moo gën a xam boppam allahu rahmaanu rahiimul malikul quddus boo ko toppee ci alquran am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent ci alquran yonent gën koo feddali ne miatun illa waahidan maanaam bu ma waxee téeméer maa ngi ci jubul téeméer téeméer ah mooy maanaam téeméer ma ma su ma ne juróom-ñeent fukk juróom-ñeent junju ma dara dama ne téeméer bu manqué benn gars yi ne ah moo benn ba déet benn bokku ci mu ne man ahsaha daxala aljannata yonent ne ku ko takk rek demal jàll waaw boo ko mokkalee soo ñu bëri mokkal ko allahu ba ci sabuur mu ne bàyyi nag ne itam boo ko takkee itam mën nga ci boole ne soo ca niru niru loo yow nit la nit mën ci melo ya kooku itam takk la yàlla dafay suturaal suturaal dafa tabe jéem a tabe te ba nay nay baaxul ah, dafa dafa dafa dafa loolu itam ci ci maanaam takk la Hmm. aslan mooy nag moom yàlla kennam nga moom gaa mu ne dafa dara sax nekkut ak moom faf aslan moo ko wax mu ne wa wa awjada rasulahu sayidana muhammadan qabla jamii alkainati ijadan minhu bila wasitati maxluqin yi mu wax li mu wax noonu kuy julli rek mën nga ci d'accord mu mu dolli nag ne te yàlla moom moo amal yónnentam bi suñ sang bi muhammadan ba muy laata amal mbooleem kaayinaat yi amal goo xam ne ci moom la jógee amul waasitatu benn mbindeef ah ñun war nañ ko mën a dégg ci alxuraan rek ndem yonent yàlla Isa moo jiitu yonent yàlla Muhammad ci jamono naan wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmadu maam mataaram ju doogul ñu ñu mu am tur dèjà mooy wane ne lii bàyyi wax ni moom noonu la yàlla moo ko amal ijaadan minu bila wasitati maxluqin wa jaalahu te mu def ko aslal kaayinaat yi muy cosaanu mboolem mbindeef yi wa wasilatahum te itam fu ñuy mun di jaar jëm ci yàlla ci moom lay jaar wala note wa sababa fi wujudihim te itam moo tax ñu amal leen kaayinaat yépp ba tey ñu bëri danañ ci dak waaye mu wéeti ne wa awjada cheikhana wa jaalahu wasitatan baynana wa bayna rasulillahi maqaama cheikh ma tijaani moom mu amal ko moom itam direct boobu nekk wasita suñ diggante ak ak ak yonent bi nga xam ne la matma bi xaysu la matmaa lana fima min allahi maanaam ilayna illa bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa alwasitatu bayna wa baynahu sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamee ne amul dara lu ñu yaakaar lu war a jógee ci yàlla jëm ci ñun bu ci yonent bokkul loolu moo neex zaatul aliya naka noonu itam tëb bu ko jógee ci yonent bi ñun mi ngi ñu jaaree ci Cheikh Ahmad Tijani xam nga loolu yàlla yàlla mi mën a def lu ne te def man di jaar ci ndox mënoo ci dara te bi ngi laata xam itam loolu xaqiqa boobu mosu fee jóg gis jaar ci ubbi ba bàyyi na mu gis loolu la ci dogitu Grèce lu mu loox rek am na aywa mooy nagu bët wowul wasita bayna naa wa bayna salaasam xam nga ca ifaada al ahmadiya defe naa eggoon nañ ca daaw wala jege woon nañ ko ba wax ne maa kullu ma faada wa barza jóge ci pays yàlla ba tatalaqaahu zaatu saydil wujud wa kullu ma faada wa barza min zaati saydil wujud tatalaqaahu zawaatul anbiyaay wa kullu ma faada wa baraza min zawati l anbiya tatalaqaahu zaati cheikh doon wax wa min yatafarraqu ala jami l awaalim moo ko nettali tey sufyaan yi ci ña ko xam la nettali ko ñëpp daa ko ci ne moo ko wax dara nag jaar fenn dem ci ñenn loolu ci zaahir sax am na waxantuma waxantuma su fekkee ne dañuy waxe ci biir biir biir mu ne ba ma waxee ne lii mooy sama ictiqaad mu ne wadawna allaha indahu wa faadat al aynaani biddumuuci ma ñaan yàlla maa ngi janoog bàmmeel ñaan yàlla mu ne wa faadat te bëbb nag al aynaani ñaari bëtam yi biddumuu yi ci rongoñ yi wa galabani te not ma albukaaw jooye xataa dahishtu ba ma mujj gëlëm maanaam jooy naa ba paase daal fi jooy waroon na xataa dahishtu fa saara ahlu zaawiyati yazdaximuuna alayya mu ne waa zaawiya bi ñi ma gis bi may tàggoo ñu mujj di di di di rëjël loolu ci sama kaw lu ñu doon def mu ne ah yamsaxuuna almadaamia wa yatabarrakuuna biha ñuy fomp sama rongo yi di ko barkeloo gan googu jóge woon Sénégal 1937 xool li ci bàyyi teg bàyyi na fa lillahi darru asaabi cheikh radiallahu anhu wa anhum mu ne ah taalu bi cheikh yee baax maanaam xijaabi jinsu wala ak ngan muuru leen waaw yàlla wan na leen ne rongo yii rongo ñu mun a barke loola ñu di ko barke loola parce que am loo xam ne foog ma gannaaw gi lu yàgg la parce que lii 37 la lii 54 xaw ma bàyyi dafa war a jaar xaas fekk nag amoon na xam nga pays bu ne am na fa ay buuxante kii mais loolu am na daal koo xam ne xam naa ne am naa ñu mu bëgg a gaarawaale am na koo xam ne bu ko romboo rek mu ne ah dégg na Cheikh Ibrahim dafay ñëw fa taala ahduna bil aqtaabi waaye géej nañu gis xut bu waay su fekk ku mag ak fa mais loolu day am ci société yi xam waxul lu ñaaw ba tey wa dacawna allaha cindahu wa faadat alcaynaanu biddumuuci wa galabani albukaau xata dahishtu fa saara ahlu zaawiyati yazdaximuuna calaya wa yamsaxuuna almadaamica wa yatabarakuuna biha fa lillahi darru asxaabi cheikhi radiallahu anhu wa anhum yal na yàlla gërëm cheikh gërëm taalibe bi ñi ñoo baax wa dahabtu min indihi fi damaanin dahaban wa iyaaban ma départ na gën a bu ma tàggoo seen na Cheikh Ibrahima ba mu mu war lu ma dem ak ñëw mu dem ak ñëw jeex war na ko mu dem ba ñëw maanaam damaan moom moom dara la loo xam ne man dama ko doon ut ba xam laa luy damaan dama ko gëm nag di ko ut ba xam ndax dinaa gis benn expression damaan daal bu ko jegeel suma xel wala suma roo ba bés ma gis suma papa bind baay di ko ñaan dam warul ma lii warul ma lii warul ma lii warul ma lii ba mu jeex ba ko bàyyi tontu nag ci laa xaw a déggee sirru damaan daf ko ne gis naa sa lettre beeg sa mataali bi waaye bi yàlla xamee ne man amuma sañuma mënuma daf maa noppal lu ñu ma gàcc rek mu gàddul ma ko mos damaan du moomati moom yow sa dangaa bëgg a meenu vingt tonnes léegi indil lañ ma vingt tonnes moo ko yéen xam naa nag waaja ba muy demande dafay fekk mu jeex ci àppe yi ذهابا وإيابا ولما خرجت من الزاوية وجدت بغلة مسرج مسرجة بعثها لي الشريف سيدي عبد العزيز بو طالب يتلقاني بها لأركبها إلى المحطة وخونا بو طالب مكولخ mbokkam mi mi mu daloon ci moom ci faaf mu ne bi mu génnee ci zaay xam foofu mbedd yu xat la oto xel daju ko ba léegi sax mu ne fekk na waaye indil ko baax la boo xam ne teg na ko ba nga xam waaye war ci pour dem gaar ba wa rakibna fi lbaabuuri lbarri yaquluuna lahu lqitaar maanaam dafa maandu ci luxa booba naar yépp loolu di daw ci jéeri ji al baaboor lañ koy wax waaye nag nee na mooy li ñuy wax qitaar ndax qitaar mu wëllët la baatam mu wëllët maanaam mooy baat boo xam ne moom itam créé nañ ko mu xaw mel ni lu moderne daal waaw comme bo saxaar mu ngi jublu jaar ci benn yoon di dem ci gox yi kon nag maanaam xaataara xitaar ak demee noonu mais dañ koy juddul mais baaboor nag moom moom lañ daan wax mu nekk murtajal xaasu diina tànja paas lañ nekk xam nga tànja fa la port ba nekk fa la wàccoon ci bato ña ngi fay delluwaat waja xaasu diina tànjata walmaraxilu bayna faas wa tanjata tawaynaha laylan distance boobu yëpp guddi lañ ko dox wa sabixata alisnaini nazalna bi maxatati tanjata fa ida almuqaddamu saydi mohamad alarfawi bërsër rek ñu egg si tànja fekk muqaddam bu ñuy wax mohamad alarfawi ak ànd ak sa faqih bu ñuy wax saydi mohamad almahdi wa jamaatun ak meneen mbooloo mi ngi mel ni ku nekk sa kër jamaatun maahum waaqifuuna inda almaxatati yantadirunana ñoom ñëpp ñu ngi ñuy teeru mbooloo lañ bi amrin min al muqaddami saydi tayib sufyaan yi kooku saydi tayib sufyaan yi moo leen ko moo leen ko sant surtout cheikh la fa lam ashur xata daxalu alayya ah sufyaani bu ifaada xafidam shukran xataa daxalu alayya fa qaalu anta fulaan mu ne gars yi daal di dugg ci biir gaar bi ne ko yow yaay diw yaay yaay yaay Ibrahima Niass alxaaj ñëwagut qultu naam fa xamalu lmataa wa marru bidiwana wa xalasu jamia mataaina fi hunayhatin wala ñu gaawante rek jël suma bagage rek jaar ci douane bi rek sob gaawal def yëpp ci lu ndikkante su gaaw waaw wa saaru maana ila zawiyati mubarakati ñu dal di jubal rek zawiya ba zawiya bu am barke ba ca tànja fa fa wa anzaluna fi xurfatiha zawiya ba am na këru gan waaw xam nga fi boo demee ndar suñu Abba Sall zawiyam ba maanaam am na këru gan néegu gan daal boo xam ne daf fi kii am ala zawiya mubaraka wa anzaluna fi xurfatiha moom wa qaamu bi waajibi ikramina fi gayati alfaraxi ñu li war yëpp ci teral ñu ñu taxaw ci bu baax fekk ñoom ñëpp ngi kontaan xam nga di ganale nit fekk yaa ngi kontaan bokk nag di ganale nit bàyyaa di am na lu ma nettali woon waaw joxe day topp kaw gi rek ci nit ñi rek la jël la jël taal yi ma nga xam ne am na fu mos a dem ba mu tàggoo di dem gaa yi jël tàppar ka wat ko ci tànkam yi maanaam pour bu mu fa dellu si tàppar ka xam ngeen léegi du tàppar kii li li li jiitu tàppar ka li tàppar kay dóor seen aada la xam kooku kontaan nañ ci moom boo ko tax nag xaaral ba bàyyi di tàggoog marocain yi ba mooñee ko dañ ko ne yow da nga war a taxaw si fii rek fii rek nga war a def wa hada wa qaam waajib ikramina fi gaayati alfaraxi xata salayna duhra bañ julli fa tusbaa fi zawi macha bina sayid alxaaj ali almustafawi ila manzilihi aljamili rahbi mustafawi nag nee na bañ jullee nag bu yóbbu ñu këram kër gu rafet la amee kër gu yaatu wa hada rajulu huwa qaatinu zawiyati allati bi tanja waa ji bi moom lañ dénk mu dëkk ci zawiya bi ci tanja wa min akaabiri l agniyaa yi nag nit ku bëri àll la nag wa sanaa lana madubatan jamaa fiha jamia al alwaan mu invité ñu nag taabal joo xam ne kayti lekk yëpp yi nga xam ne fil maghrib da nga ko fay gis gannaaw gi invité na ñu fenn gannaaw gi lu yàgg waaye kooku mooy bu fittaas moo doon ministre urbanisme ci Maroc bés bu la invité la la nga gis lekk yoo mos la gis wa huwa min akabir al-aghniya boom wa ba'da al-insirafi min tanawuli at-ta'ami wa salati al-'asri fi zawiyatihi al-makhsusati allati fi darihi masha bina ila arbab as-safinati wa baddalna al-awraq allati qata'naha fi min fas wa raja'na ila zawiya détail yëpp la lay jox mi ci bu gàtt bu neex a jàpp waaw mu ne bañ julee ba pare ñu an ca zawiya bu bokkut ak bale ñu daloon zawiya bi ci kër waa ji kër waa ji dafa am zawiya mu ne ñu julli fa après nag ñu ànd dem ci ci bureau yi amee mbiru gaal gi naayoo demee defal seen kayit yëpp wa fi laylati al arbia istadaana al qaidu abdusalaam alsaidi wa sanaa lana maadubatan tuzri bi kulli ma qablaha qaid abdusalaam itam ca moom itam mu invité ñu ca guddig àllarba ga taabalam ji nag xeet na yi mbooleem yi paase woon wa huwa rajulun baxaasun an asraari tariqati mu ne waa ji nag dafa bëri lu muy gëstu ci mbóoti tariqa bi xata ijtamaa indahu min asraari tariqati maa lam yakad yajtamiu inda ahadin ba lim ci dajale presque daal bëriwul ñu ko dajale waa jooju wa abraza lii aljamia taaliban al izna nga yi dafuñ nag yim dajale yépp nag bés bi mu gisee bàyyi noonu mu dajale mboolem mbóot yim gëstu te baxaas la du baaxis rek baxaas par excellence mu ne ko dama bëgg nga jox ma ndigal ci mboolem mbóot yi dégg nag bàyyi ne ma yëpp jox bàyyi ne fa azintu lahu fil baadi bàyyi ne ma jox ko ndigal waaye ci lenn yenn yi jox ma ko ci ndigal wa atxaftuhu bi baadi ma lam yakun indahu min durari l asraari ma jox ko nag mbóot yoo xam ne ñooy mbóoti urusu durree dëgg ma jox ko ko yoo xam ne amu ko woon dégg nga wax ci kon nag kuy baxaas baxaas mooy kii góorgóorlu ak kii nag moom xam kër jiitul kunoos la wa ataana daxwa wa ataana daxwata yowmi alarbiaai li ziyarati wa saara yasalu wa yatlubu minna adduaa li nafsihi wa li ixwaanihi wa ahli baladihi fa xasalat saatun saidatun mubaraka mu ne mu ñëwaat nag dellu si fa cee yoor yoor yoor yoor àllarba pour ziyaara si ma mu ne nag muy laaj ma koy tontu muy ñaan pour muy sàkku ci man ñaan ñaanal ko ñaanal mbokkam yi ñaanal waa réewam mu ne daal waxtu woo di waxtu wu texe wu am barke day am toujours bay ne wa araytuhum ma won leen ñoom waa Maroc jawahirul maani jawahirul maani bi xatil xaaj Ali Harazim Barada muy ci écriture loxo ki ko taarif Ali Harazim léegi da ngay dégg aha bi xatil xaaj Ali Harazim Barada wa shaaraati cheikh radiallahu anhu ma wan leen itam ay kawar yu jógee ci bopp Seydina Cheikh fa qaala waaja ne ma nahnu maachara ahli Tanjata yajibu alayna alhamdu wa shukru xaysu akramana allahu bi nuzuli déglu xalifatin min xulafaay cheikh xam mbiru xilaafa dañ ko war a leer xam du lu ñuy nommé nit daal xilaafati cheikh matien xool kii mi ngi door a egsi ci ñoom mu ne ko ñun waa Tànja war nañoo sant yàlla lool ci wax ak jëf ndax bi ñu yàlla teralee benn ci xulafaawu cheikh yi ñëw fi wàcc fii gante bàyyi lay wax man sifa min min sifati kada wa kada di ko di ko di ko mel ku mel nii mel nii mel nii wa dakara annahum kaana yaatihim saalixuuna mu ne ndax ñun avant ay saalixuuna dañ fi daan ñëw wa fi hadihi muddati inqataa dalika mu nag sept ans dernier gis gisatuñu ñu mel ni fi daan ñëw wa qaala lii ataarifu rajulan yuqaalu lahu alxaaj Abdoulaye Niass mu ne ko yow xam nga góor goo xam ne mi ngi tuddoon xaaj Abdoulaye Niass bàyyi lay laaj xam bàyyi dafa tey xam nga bàyyi du ko wax ne bàyyi bàyyil ma yeggaleel déedéet bàyyi dafa tekk rek ne ko waa mu ne ko rajulan yuqaalu lahu xaaj Abdoulaye Niass min sifatihi man sifatuhu kay man wasfuhu kayta kayt di di décrire ma walaaj qultu bala ma ne ko anaam xam naa ko kay fa tamma lahu faraxu mu ne mu kontaan ci de de la la fa qaala qaala wa ayna huwa mu ne ko mu mu anaam kooku xaaja Abdoulaye Niass qultu saara ila rahmatillahi mu ne ko kooku faatu dem dem na ca yërmaane yàlla qaala ataarifuhu xaqan yow xam nga ko bu baax qultu naam huwa abi ma ne ko xam naa kay ndax mooy sama baay mu ne nag fa tamma lahu lfaraxu qaala kaana xabiban lii kooku suma xarit la woon qultu antum jaalakum allahu barzaxan bayna cheikhi attijaani radiallahu anhu wa bayna rasulillahi salallahu alayhi wa sallam bàyyi nag na ko yéen yàlla moo leen def ngeen barsax diggante cheikh tijaani radiallahu anhu ak yonent yàlla muhammad wa xiina nsarafa al ahbaabu xalaa biil muqaddamu wa qaala lii bi gan yëpp demee nag waaw jooju nee na mu wéet ak man wax ma lii ne ko inni mundu nazaltu uridu an axuda anka wa atluba minka bacda ma yanfacuni min awraadi cheikh radiallahu anhu wastaxartu llaha miraaran walyowma ataani aatin bayna annawmi walyaqadati wa qaala lii sir ila fulan huwa cindahu almiftaax allahu akbar mu wéet ak bàyyam ne ko nag bi nga ñëwee ba tey dama bëggoon a jàpp ci yow sàkku ci yow itam nga jox ma lu may jëriñ ci wirdoo yu Cheikh Ahmad Tidiane te ci la ne muqaddam la mu ne nag ma def listixaara yàlla mu tànnal ma ay yoon maanaam bu amee résultat itam dublewaat ko rek mu ne mu ne ko nag tey nag aji dikkal dikkal na ma fekk maa ngi ci diggante nelaw ak xeewu mu ne ma demal ci diw joxoñ bàyyi moo amee caabi ji mun na ko wàcc yàlla xool mu indoon mifta mu ne bàyyi na wa shaafahtuhu bi baad al asraari bàyyi na nag ma bàyyi xaliba yi ak këy yi tuñu wanteeg moom ci lenn mbóot tuñu wante de bouche à oreille waaw wa kada al qaidu abdusalaam qaayit abdusalaam itam qaayit foofu moo doon commandant yooyu mu ne kii def naa ak moom noonu wa sayid alxaaj muhammad jaar naa ak moom foofu wa qad zaarana min al ahbaabi hunalika jammun gafir soppe yi ñu sopp ngir yàlla tariqa bi nag mbooloo yu bëri ñëw nañ fa nuy si imagine nag gan googu fi jaar rek kilifa yi wéet ak moom ñii di jàpp ci moom mbooloo mi ñëw di ko xam da ngay fàttaliku la bàyyi waxoon ca golgoos gannaaw ga ka annana wa nahnu fi golgoosi fi ahlina min taybatin li koosi maa ngi mel ni maa ngi diggante tayba koosi kooku tumuranke jamun gafir minhum saydi allal buks buks bug saakni wal faqih Seydi Mouhamad Mouhidine am na ñu ñu fa ñëw ñaar ñooñu la ci cité mais ñu bëri la wa ruxna maahum baada salaati al asri ila safinati al ingrisiyati musammati Olt ñu dem nag gaal gi gi leen naa jëlee Tànja nag Canada moo leen indi Tànja mais Holt moo leen di yóbbu Jidda insha allah wa hiya saahibatu al mitxanati zarqa waaw génnikaayu saxaar boobu ñuy qualifié ñuy ka ñuy wane ne dafa vertoon te bàyyi di ko woy di ko tudd ci woy mu ne gaal googu ko moomoon wa hiya baaburun sagirun malihun mustaidun li naqli xujjaaji kulla sanatin min marsa tanjata ila jidda mu ne gaal gu yem la gu gu mignon koo xam ne at mu jot moom pare na pour yóbbu nit ñi jóge leen Tànja ba Jidda wa ayyanu laha zabbaaxiina wa tabbaaxiina min al muslimin ba dañ ko préparé pour ak ba ña fay rendeeg ña fay togg ñëpp ay julli lañ c'est très important wa hayau fiha mahalla li ijtimaai xujjaaj li salawat al xamsi wa qiraati al wadifati wal xisbi préparé nañ sax ci gaal gi fu nit ñi jullee ak tijaan yi fu ñuy wasifa ak ña ca des fu ñuy jàngi seen xisbu aywa wa lahum muaddinun yuaddin am na sax kuy nodd walmaau muhayaun baaridan wa saxiinan day joxe détail ndox ma ca gaal ga boo bëggee mu sedd boo bëggee mu tàng falxaasilu an alxaaja ida kaana fiha fa ka annahu fi daarihi mu ne grosso modo xaaj bu nekk ci gaal gu wér lay may su kër nga nekk wa in lam takun fi lxusni waljamali ka sufuni faransa fa duunaha bi maratib dëgg la olt melu ni bateau français yi ñu xam ci taar baag yooyu yeggut foofu waaye nag quand même ni ma wax daal moom mel na ko wa rukubuna fiha qubayla algurubi laylat alxamisi li laylatin baqiyat min shawal ba ñuy embarqué nag boobu ganta ngi waaj a so ci bésab àllarba guddik alxames boobu benn guddi rek moo des ci weeru kori mu ne ba ñu am ak ma ne bismillahi mujraha wa mursaha wa saxa subhana alladi wa saxara wa saxara allahu lana hada albahra alazim da alxatari aljasim fala mayda wala tahwim mi ngi ba daañu leen luy làkke mu ne yàlla sa tàggatal ñu yàlla tàggatal ñu géej gu màgg gi al azim bi amee xatar nga xam ne danger la al jasim fala mayda déet miir wala tahwim déet ngay loolu ñu waxoon dem neer waaw yàlla tàggat la ñu dara luy indi problème amuñ ko wa tabadda tanjatu fi shaklin min al xusni ajab fa ka anna masaabihaha fi dalaami shuhub xam nga lii kii kii point la mu ne bañ déparé ba geesu tànja xam nga jant sona mu ne tànja dafa maanaam tànja ñu gis ko mu amee melo wu rafet bu yéeme mel ni daal lamp yi fa tàkk dafa nekk comme ay biddiw yu nekk ci guddi gu lëndëm ya salaam ya salaam allah aywa walam yuzaayilha illa baada al-isha dugg nañ nag waaye gaa levewu lànkar lu may gannaaw gaye walam tazal tashuqu bina xubaab almaai xata nkashafa an alsubxi algisha wa taraa lana alaskandariyatu ashiyata yowmi sulasa mu ne muy daw rek di daw rek di xotti rek ndox mi ba maanaam muuraay bi muuroon suba dal di mureeku ñuy seen Iskandariya ca ngoon ak talaata bisab talaata ba baada hunayatin tara alana min baidin xasru Port Said mu ne yàggul tuuti ñuy seen Port Said wasalna ilayha baada gurubi shamsi laylatal arbia ñu yegg Port Said gannaaw bu jant sooy ci bésab àllarba mun nga ko siiru wa sirna nuwaddiu alixwana min alxujjaaj alladina yanziluuna fiha yaqsu bi qasdi ziyarati misra wa xabasatna al aqdaaru al ilaahiyatu an ziyaaratiha maa man zaaru bil asaf mu ne ñu ñu ñu tàgguwante nag ak ñi nga xam ne ñoom ñi ngi ci gaal gi waaye ñoom dañuy wàcc Misra ndax dañoo bëgg ziyaare Misra seen programme la door a continuer xëy na ci geneen gaal waaye ñun nag ñu am ndogal ndogal ndogal yàlla yi daal am nañ ngant ba ziyaare wuñ Misra ànd ak ñi ko doon ziyaare ji et bil asaf maanaam malheureusement lawla anna nuzulana amma qaribin bil madinati al munawwarati ala sakiniha afdalu salaati wasalaam doon nañ am naqar ci ñàkk a visité Égypte waaye nag naqar wi li ko fanq mooy balaa yàgg rek ñu egg Madinatu Munawwara waaw wa baada taftishi altabibi wa tabcihim liljawazati linnaazilina wa nazaluu wa jarat bina ila Suez wa ala tuluci shamsi raayna safirata Suez almusamati bi canal Suez فصارت السفينة تمشي رويدا وظللنا ذلك اليوم نتنزه بالنظر إلى البراري والأشجار والتلول والجبال وذلك أحسن شيء في أعيننا لطول العهد به يا سلام observation mu ne nag ñuy dem ba dugg nag ci ci ci madiqu maanaam canal Suez xam nga mu ne bato bi day dox ndànk nag mu ne nag ñuy bànneexu ci xool jéeri ji mu ne mu rafet ak ñu lool ndax dañoo gëj gis jéeri ndox rek lañ doon gis wa inda gurubi shamsi wasalna ila Suez wa inda intisaafi leyli leylat alxamis jarat bina qasidatan chatra judda en détail bu continuer continuer nag ba guddik alxames ci la nag jubal nag daw nag jëm jidda وعشية الجمعة ونحن معشر التجانيين في أثناء ذكر الهيللة صوتت بنا السفينة معلنة بالوصول إلى رابغ رابغ الجحفة ليحرم من قصده مكة المكرمة دكو ولك يا ما شاء الله قدي الخميس la jubal nag jëdd mu ne ci ngoon ak ajjuma fekk ñun tijaan yi ñi ngi nekk ci di sikkar sikkar si ajjuma ci bato bi ci lañ dégg bato bi dal di siffler di wane ne ñi ngi waaj egg raabix nga xam ne kuy xarmal kuy jiital aj foofu ngay xarmalee in jiita raabixan te nadaf waxta si ca ca mursid nga nga dégg ne Baye bokk ca muy encore une fois benn confirmation que Baye Medina la jëm njëkkeewul aj retenez bien dafay leeral yu bëri waaw man qasduhu makkatul mukarrama zaadahu llahu sharafan wa takrima ñi war a dem màkka googu nga xam ne yàlla ko yàlla dolli teraanga ak ter ak ak tedd fa ahrama min alxujjaaji salaasatu nafarin walbaaquuna qaasiduuna madinata rasuli sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ci bato boobu ñett rekk ci jiital aj ñoom ñu xarmal waaw mu ne ñi ci des ñëpp ñi ngi jublu madinata rasul sallallahu alayhi wa sallam wa kaanu ay xujjaaju safina miatayni wa sittatan wa sittina waaw te te kat 266 la ñëwoon 3 ñoo ci jiital aj atam te bàyyi bokku ci wa inda adaai faridati subhi yowma sabti taraat lana juddatu mu ne bi ñuy julli suba rek lañ séenaale tabaxi jëdda yi wala lampi jëdda yi fa tahayyanaa li nuzur mu ne ñu waaj nag pour wàcc jëdda wa inda irtifaai shamsi ba jant bay jóg rek taaradat lana sanaabik gaal yu ndaw yi ñëw pour pour pour seet bato bu mag bi ak yooyu daal di ko commencé ñëw tawassalna biha ila mina i judda ñu wàccee ci bato bu mag bi dugg ci ba kanot yi dem ca dem ca kii ba port ba tawassalna biha ila mina i judda wa nazalna wajadna rijal alxukumati alsaudiyati fa sa'alana alraisu antum min ay qultu min sénégal qala taala ya abdallah fa atani abdullahi albuhayri mujj nañ ko fekk ñun wakil mutawifina wa dahaba bina ila mufattish aljawazati wa huwa waqifun qaribun minhum wa axada mina aljawazati fa dahaba bina ila mahali diwana almusammati indahum biljumruk wa xalasna wa qala siiru ila almanzil fama wasalna almanzila xata ata jamiu mataaina ila almanzil wa aqamna indahu sabt yëpp day yof détail egsi nañu teeru nañu fu ngeen jógee Sénégal ñii toppatoo Sénégal yi ma maanaam Abdoulaye Bouhayri mooy leen représenté ci Jeddah mooy leen dem leen ca daluwaay ba mu ne ba ñuy egg refecté bagage yow maanaam ñi dañoo organisé woon te dañoo sawaroon mun nañu toog fa macha allah ba ba maanaam bésu samedi ya wa fi yowmi al ahadi ashiyatan li ihda ashrata xalat min zil qaada ركبنا إلى طيبة الغراء مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ودار الهجرة ومنبع العلوم والمعارف والدين والصلاح mu ne nag ñu daal di dimanche ca ngoon fekk ñi ngi ci fukki fan ak benn ci weer wi jiitu aj zul qeeda ñu daal di dugg nag ci oto yi bul foog ne ay ay limousine ay limousine la de boobu ay camion ak yi waxoon léegi nag ñu ñu dugg nag jëm jëm fan jëm Tayba ci turi Madina la bokk Tayba gu leer gi nañ jëm Madinatu Rasul dëkk bi yonent def ab dëkkam fi nga xam ne mooy kër gi mu gàddaayoon jógee Màkka jëm ca geesu yàlla geesu Màkka xool ko ne yàlla yaa ngi may génne ci ci dëkk bi ma gënal maa ngi lay ñaan yàlla nga yóbbu ci dëkk bi la gënal moo tax Maalik ne Medina gën Màkka bàyyi na yaa taybata almustafa yaa tiba rayaaki walxusnu ajmacu yulfa fi muxayaaki alawti makkata zaat albayti isharufat bilbayti walbaytu min taaha fa bushraaki moom daf moom loolu la épousé mu ne dëkk boobu itam mooy manbaul ulum xam-xam yi am njëriñ yëpp foofu la ballee maarif yëpp foofu la ballee diine foofu la ballee yiw abt foofu la jógee wa saarat bina sayaaratu inda gurubi shamsi laylat al isnaini oto bi départ ca ca guddik altine wa qataana marxalatayni wa nazalna wa sallayna al isha donc maanaam bi bi bi ñu bi ñu bi ñu rombee ñaari marxala ñu ñu tax di arrêté julli timis a gee wa taashayna daal di reer wa sirna ila intisaafi leyli ñu continuer dox ba minuit wa bitna fi manzili ñu sama rabix ba tey rabix ci maxataar yi ñuy armalee la bokk wal manzilataani qablahu dihbaan wa tool mu wax niñ tudd وعند صلاة الصبح ارتحلنا ولم تزل السيارة تجري بنا لا تلوي على أحد حتى قطعنا مرحلتين ونزلنا لتناول الطعام mu ne oto bi nag commencé rek buuf rek jaaratuñ fet mel ni ñu yàkkamti ba añ jot ñu taxaw lekk wartaxalna xata wasalna dal xulayfa almusamma alyowma bi'r ali ñu continuer ba egg dal xulayfa moom la tiiri fiq yi daan wax ba léegi biir ali léegi sax ñu naan abiyaar ali fa waaw nga xam ne boo nekkee Medina di xarmal mun nga xarmal génn waaye nag mu ñëw bu foofa xarmal door a dem door jubal Makka mooy sunna karrama allah wajahu wa nazalna wa ixtasalna bi niyati duxuli madinati rasuli sallallahu alayhi wa sallam bu ne ñu wàcc foofee sangu ci yéene dugg Medina ci yonent bi xam nga ñu bëri yooyu fi mu ne kiyatuñ ko
waaw dama gis ci ci benn baax bi Abdullah ibn Omar. kaana yanwi yaqtasilu bi niyyati duxuuli makkata. waaye ndax maanaam.
ci ci ci lu dul aj wala waa ci aj mooy ci aj moom.
moom ci aj moom loolu moom.
waa lu ci la waaye moom yaakaar naa.
waaw bu fay dugg rek.
bu daan dugg rek.
waaw bii rek kon nag kon nag bii itam dugg Medina bàyyi daf koo waajal. yéen ne maa ngi dugg dëkk bi ndax boobu dëkk rëy na sangu dugg Màkka boobu ci aj ma li taarix laa koy wax ba ma gëjee ànd ak Cheikh Abdoulaye dugg Màkka laa ko gëjee def suñ aj gu njëkk ak ak yaay topp moom daf ci insisté ndax ajam gu njëkk daf ko defoon da ngay jaar ci kii boobu nga xam ne da ngay dañ lay sotti ndox mi rek gannaaw gi dañuy burle rek man ndax mosuma ko def.
waaw man daal wax dëgg yàlla boobu il m'a vraiment entraîné ci affaire aj wala bu ñu àndaan ñu bëri bu ñu nekkee foofu ay kilifa waa nguur gi nguur Sénégal mos nañ dal ak waa cour suprême ak ñëpp ak yaay Moustapha Niass ak ñëpp buñ toogee bañ toogee rek ma ma mel ni damaa gàkk di laaj El Hadj Abdoulaye muy ba daañu rek di wax atte yi pour nit ñi xam ko waaye nag yaay Moustapha Niass mooy suñu yaay moo ñu gën a muus mu ne mu ne mu ne yaay jabar Moustapha waaw mi yaakaar naa li muy laaj ñoo tax mu di ko laaj de mënul xalaat du ko xam mais ah si si si Hadj Abdoulaye dafa xam mbiram aj xam ngoo xam ne lu yéeme la.
dañuy ànd dañoo ànd 84 waaye boobu Medina lay xàmmalee. biir Ali. 84 naaj bi ñu àndoon. mais biir A Medina lañ jiite. dëkk dëkk ci yàlla. ñu demee bi ñu ñib si lañ soxla xàmmal.
وآلى ودخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلينا ركعتين وصلينا العصر وص- ووصلنا إلى المدينة بعد العصر قلنا تقصنا لي كبير مدينة ودخلنا الحرم الشريف لقي في حرم المدينة كماس الحرم بي مي جملة ما يجاكجة يدوق جاكجة وفي ذلك أقول بابا لازم وخنك لقد عادني شوق مبرح إذ دنا مزار حبيب الله والجسم أعلنا مزار أمين الله مركز سره عليك السلام بالتأدب مقرنا مزار لنا منه العلوم تفجرت وجبريل فيه خادم فله الهنا وقى الله زرقاء الدخان كما وقى كندا بوصلي للحبيب العلي السنا dafa jara fi leeral fii nag balaa ëllëg muy indi ay problème bàyyi ne ne ba may dugg rek maa ngi naan mu ne cofeel ak nameel ga ma amoon ba mu sonal ma songaat na ma bii fi ñuy ziyaare xabibullaay jege rek mbir mu ñëwaat ci man mu ne taxaat su ma yaram dèjà moom déclaré na li may wax noonu benn ma ngay lox benn ma nga tàgg waaw mu ne mooy fi ñuy ziyaare ki yàlla wóolu aminullahi mooy marka siri centre mbóoti yàlla mooy kooku mi ngi ko naan alayka salaamun maa ngi lay nuyu yow yonent bi muqranan buñ lënkale bi te addu bi ak yaru mazaarun ne meeku waay la boo xam ne lana minhul ulumu tafajjarat xam-xam yi ñu am yépp foofu la balleen wa jibrilu te jibril kat kilifa malaaka yi xaadimun bëkk néeg la fii ci foofu falahu ñeel na jibril alhana ndokkeel maa ngi ko ciy ndokkeel jibril xaadim la foofu jibrilu xaadimuhu wal xaqu naajaahu ci muhammadul mustafa mu ne waqallaahu yal na yàlla musal zarqa adduxaani bato ba kiyam ba wertoon bi mu doon wax léegi mooy mooy xolt kama waqa na mu woto woon Canada Canada parce que ëllëg dañu foog ne bàyyi Canada état lay ñaanal lay wax fii waaw bato bi la bi tuddoon Canada bi ko indi tànja te wax na ko soreegut yëpp dafa mat a leeral mu ne suma qultu munshi'an mu ne ma waxaat ne ataaka rasulallahi zawrun muaffiran xudaydan lada aataabi baabika mu'sira ويطلب منك البسط والفيض والجدى أتاك محبا في الحقوق مقصرا لك أتاك ديكنا لرسول الله يونتي الله بي زور بولو مولاي زيارة معفرا بير مموي أجيف فندل خدينا أسلخ لدى أعتاب بابك تسبنتو نيك بي معسرا بير مموي أجي soxla ndax yi fi jafe na waaye tuuba te muy sàkku min ka ci yow yii albasta tàllal wal fayda ak faydu bu tàlli wal jadiya wal jada ak njëriñ ataaka dikkal na la muhibban mbir muy aji sopp muqassiran muy aji gàttañ lu fil xuquq ci atte yi xool ni muy kiyee boppam mais am na lu mu waxut fii ba mu ne bañ duggee Medina daf ne chauffeur bi lii moo ko wax min fiihi li uzuni daf ne chauffeur bi buñ duggee xaram Medina rek wax ma ko bañ duggee rek mu ne ko firma ko taxawal ba mu ne ko adresse bi ñuy dal bii la ci Medina ma mu ne ko demal yóbbu fa bagage yi summi dàllam yi bàyyi ci oto ba fan daañu ba ca jàkka ja ah dina ñëw xam naa dina ñëw fii fii man xam nga xam nga xam nga aj dañ ci waxtaan lu gudd fu ñu toll rek mooy recall wa fi tilka almasafati bihamdillahi lam nastaxil illa bisalati ala annabi sallallahu alayhi wa sallam wa qiraati alamdaaxi wa xususan amdaaxi alimami albusayri lati julluha min xifzi mu ne nag distance boobu yëpp maa ngi sant yàlla ndax amul dara lu ma doon liggéeyee lu may julli ci yonent bi ak di jàng woyi tagg yonent yi yi nga xam rawatina mu ne hamsiyatu busayri yi ak burda nga xam ne li ci ëpp yëpp dama ko mokkal wala ma raayt wala ma raayna alqubbata alxadra bay séenee nag coupole bu verte ba bi tiim bariix bi waqa waqarub naa bañ jege ko ah mu ngoog amartu laa wax saaiqa sayaarati bi iqaafiha linnuzuli wa namshi ala aqdaamina mu ngoog bañ ko séenee rek laa ne waa ji taxawal fii man ma dox détail ba nag mooy daf ko jox adresse ba muy fa muy fekk bagage yi فأوقفها ونزلنا نمشي بسكينة ووقار وذل وانكسار وابتهال وتضرع بالتوبة والاستغفار ونانا مؤرتي أوتو بن نيواتي دي دوخ نين دون دوخي غاسو بوتي يكي دا دا نين دون دوخ مو ne بسكينة تيك دل ووقار أك ويغول وذل أك ترخل يالا وانكسار أك دم سن بوب وابتهال أك نيانكو وتضرع أك ترخل لكو بالتوبة تي توبات والاستغفار أك بلو يالا والدعاء أك نيان حتى وصلنا باب المدينة المنورة bañ yooyu yëpp fekk egg guñ ci buntu Madina xam nga bâtiment yi mel yoon nii ba muy seen xuba boobu sore nañ léegi nag gratte-ciel yi tax na doo ko seen te action bon seen seen funduk bi itam fi mu ne nii bool nañ ko ci xaram bi la tey siir.
waaw waaw waaw waaw ah tey si peut être ak ami si créer da ngeen wax waaw. وصلنا بل نمشي لل تمشوا لا لا لا يتعرضون حتى حتى وصلنا باب المدينة المنورة وجدنا المنزلين واقفين يتعرضون للضيف فسألت عن أحمد الزناري منزل السنغاليين فتلقاني ابنه عبد الرحمن ومشى معنا وقال تمشون إلى الدار ثم إلى الحرم النبوي قلت لا بل نمشي للحرم قبل كل شيء bañ eggee nag ñii dalal nit ñi ñu ngi fi moom xam na adresse su ki koy dalal moo doomam daal di koy teeru ne ko nañ dem kër ga après ngeen dem xaram bàyyi na ko déedéet bal namshi lil xarami qabla kulli shay ñun xaram la ñuy jiital jàkk ji lañuy jiital tamshuna ila daari suma ila xaram mu ne ko qultu laa bal namshi lil xarami qabla kulli shay fa daxalna alxarama annabawiya min baabi salaam wa wasalna ila rawdati wa sallayna تحية المسجد في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومشينا إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفنا أمام القبر الشريف عند باب المواجهة وهي صفحة الفضة وفيها قوة تقابل وجهه صلى الله عليه وسلم بمقتضى آية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا من يوم إليك بعد دوغنا ذاك Imaginez mu ne ñu egg ca rawda ba julli tahiyatul masjid sunna daiman julli tahiyatul masjid ca mihraabu yonent ba mihraab boobu nga xam ne léegi dañ fay bagaar ndaxte dafa kii dañ ko léegi sax lu jafe kii la waaw foofu mu ne ñu julli fa dañ koy baaree jiw yi.
waaw waaw du ko mën a- waaw ñu mu ne mu ne foofu la jullee gannaaw bu ñu jugee baabu salaam egg na ci raw daba julli ci mihrabu yonent ba ñu ñu dox nag ba egg ca ziyaare yonent bi bañ wax bañ taxawee ca kanam xabru bu tedd ba fi ñuy wax baabul muwaajaha nga xam ne da nga gis luñ defar nii ci kiw kiw xa xaalis kuutu booba mu ne moom nag am na aaya boo xam ne bi yàlla wax ne yéen jullit ñi gëm alquran su ngeen di déyante yonent bi na ngeen jiital sarax mu ne wa in kaanat mansuuxatan li annaha innama nusixa wujubuha mu ne aaya bi jëfandikoo naa ko man ndaxte folli nañ ko waaye war gi mu war lañ ko folli waaye def ko am ca njëriñ folli wuñ ko il faut nga xam waaw mu mu joxe sarax doon faa dem
Ndax moom ci tafsiram danay wax ne aaya bi bi mu wàccee Imam Ali rek.
moo ko jëfandikoo ñu folli ko mooy nag war ga nag lañ folli waaye nag baax ga folliwuñ ko waaw ndaxte su waroon rek ñëpp def ko yaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar mu ne bu séeréer allah yarxamu moom la tëjee way hamziyaan bi. wa sanaan qaddamtu bayna yaday najwaayi lam iz lam yakun ladayya saraaru.
bu sëri man aqaama salaata man abada al ilaaha wa qaamat dara.
rabbi al ashiyaa mu ne ko ma man nag tagg bi ma la tagg mooy sama sarax ndox dama banque bu sëri naa léegi nag ñu tëjee lii kon dars bi parce que bàyyi mu ne ñu ñëw nag fa qara'na salaama waaqifiina déglu bu wax mutaaddibiina xaashiciina xaadiciina gaadiina xool waaj bi ne gaadibiina xatiir jiddan li lay li lay wax affaire cor- correction kii gaadiina tarfa mooy ñu damm suñu xef kii ne gaadibiina fekk ñu ngi mer loolu boobu dafa jubul sax si xel gaadiina raadiina da ngay def rek shadda ci kaw rek daal di soppi kii bi yaa mu jeex taaratan wa taaratan natamattau bi nadari mu ne nag léeg-léeg ñu wàcc suñu xef ngir wegeel léeg-léeg itam ñu bànneexu ci xool fii nag lii la nuyu yonent bi assalaamu aleyka ayyuha nabi wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ne moom la répété téeméeri yoon defal boo fa demee te itam wa qarana salaama waaqifiina ñiy laaj ndax bu ñuy ziyaare bàyyi dañuy toog ak dañuy taxaw waaqifiina te boo fa toogee da nga fay yàgg di bloqué ñi ci des itam waaw man de leen laa seetlu mos maa seetlu Baye Si liñ ànd liñ biñ daan biñ àndaan ak moom jullit fajar ñu xam ne aadaam balaa fo- foofu ñëw waaw mu dem ziyaare Baye balaa ñëw Waaw.
ñaan kaani gisuma woo gisuma ziyaare déedéet moom day roy yii signal yi boo demoon yii daf ko mokkal waa jooju waaqifiina la bàyyi wax de mu ne boole ca yaru ak suñ xol yi yëg màggaay ñu suufal suñu bopp duñ xool sax xool bu yàgg mu ne ko assalaamu aleyka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatu téeméer yoon boo amul kurus ngay def boo defee fukk banque benn baaraam boo defaat fukk ba su paree rek àddina neexul nu ñu dem banaan kurus bi daal xaw ma compter nu muy nekkee bi daal xanaa lii ñuy compter kay aywa mu ne suma salaamu ala xalifatayni mooy kan abu bakrin wa umar wa li baaxil xulafaay istixdaaran ñi des ñëpp nag ci xalifa yonent bi ma teewlu leen nuyu leen ci nuyu boobu wa baaqi sahabati wa ahli beyti ma boole waale ci sahaaba yëpp ak ahlu beyti rasulillah yëpp summa qulna ma qaala allahu taala walaw annahum id zalamuu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru llaha wastaxfara lahum rasulu la wajadu llaha tawaaban rahima waaw mu ne nag ma jàng aay ba yàlla neewoon yonent bi nit ñi ku ci dem ba tooñ boppam ba yàq boppam fekkoon ne dañoo ñëw ci yow ballu yàlla yow it nga yokkal leen ca balul leen yàlla kon yàlla jégal leen bàyyi na ñiy wax ne bul wax ne maa ngi siyaare ci yonent bi damay dem ca jàkka ja waaye danaa ko nuyu mu ne daf foog ne dañoo juum ndax yàlla ba muy wax ku bëgg yàlla baal la dafa ne buñ ñëwoon ci yow jaa uka la wax waxul jaa u rasul jaa u- jaa ul masjida jaa uka te su boobaa itam dem mu ne fastaxfarullaha ñu balu yàlla yemu ca wastaxfara lahum rasul yonent nag yokkal leen ca baloom nga moom mu ne moo tax mënuñ ci génne yonent bi jàpp leen parce que débat yu foo yi dafa bari lool lool lool fi mu ne wa sallayna ala nabi sallallahu alayhi wa sallam sabina marratan moom tam xam kenn xamul lu fa bàyyi jàng mi ngi asalaamaaleyka wax na ko téeméer léegi ñu julli ci yonent bi juróom-ñaar fukki yoon wa daaw naa li anfusina ñu ñaanal suñu bopp wa li waalidiina ak suñuy waajur wa ixwaanina ak suñuy mbokk wal mutaalliqiina bina ak ñi jàpp ci ñun wa li jamii al muminina wal muminaati wal muslimina wal muslimaat yépp ma ñaanal leen ku gëm yàlla rek góor ak jigéen ku jébbul yàlla rek góor ak jigéen taxawaay booba ñaanal naa la ba tey xàmme xàmme goo ba tey ñaan ak ubbu yépp a njaboot wa warada alayya hunalika adciyatu nadman wa nasran wa nasru la adbituhu wa min annazmi foofa ma taxaw nag di siyaare ay ñaan yu bëri rod nañ ci man jàpp ma leen ndax day ñëw rek may wax ak nag yoo xam ne dama koo woy waaw nag loolu nag woy bi nag suñ ñëwatee ci dars bi ñëw ñu ngi ko ndaxte dafa xaw a gudd waaw ba pare wax na nag danaa gën ñu dépensé seen temps ci Medina ak lam fa rab ci ay woy ak ziyaara yam fa def lu mu fa waxul rek ne ziyaara na ko jarul ba fa demee nga cay sonn def nag ay détails yoo xam ne moom géographe xut bu géographe la détails yow tabaarakallah tabaarakallah ah, ba nga xam ne daal macha allah am na fa yu ko yàlla may ju ñu برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجلد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين